dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyantoo yéenekaay gii de la Tribune ak waa Grand Place ñu daal di xëy ñëw ci ay Aïda Diallo soxna Cheikh Béthio Thioune ji nga xam ne jamono ci nag Touba daat nañu koy mere loola bëri na ay mbàkke-mbàkke yoo xam ne jamono ci daat nañuy jóg ne Aïda Diallo dootuñu ko bàyyi benn yoon muy salfaañe li nga xamante ni mooy yoonu murita wala mu koy daal di taqal journal bi de la Tribune mu ñu xamal lan ñu Aïda Diallo koy jamono ci Serigne Mountakha Mbacké xalif général des mourides daat na koy tëjal ay buntam ndax Touba li nga xamante ni gis nañ ko ci ki nga xam ne mooy Aïda Diallo nekkoon ñetteelu soxna Cheikh Béthio Thioune la nga xam ne ni ay ndigal la woon sëriñ bi daal di ko koy dénk Aïda Diallo amul lenn loo xamante ni daat nay respecté loolu maanaam wéy nag di nangu ay ziar ba pare di wéy di nangu ay njébbal ba pare di dajale ay nit di wéyal ay cant te loolu lépp nag dafa bokkoon ci loo xam ne sëriñ bi dafa ko kaa tere woon journal bii di waa Grand Place mu ñu xamal laan ñu moo taxit jamono ji sëriñ Mountakha Mbacké daat na yëkkate ay kàddoom maanaam Aïda Diallo yàgg nañu ko avertir waaye nag gis nañ ne daal amul dara loo xamante nañu nag lu jëm ci wàllum wàññi dépense publique yi ak institution yi nga xam ne ñu bari jàpp nañ ne daal maanaam xaalis bu bare moo fay dugg te njariñ la bëriwul ak nag yorin woo xamante ne wu sell lay doon ak wu leer njiitu réew mi di président Macky Sall jamono ji nag daf caa daal di xar tànk tubéyam lu jëm ci wàllum njàng meek njàngale mi université Gaston Berger ba te Saint-Louis étudiants yi nag ñoom daat nañuy amal ñaari fan yoo xam ne dañu ko njàng mu kawe mi dafa tële ci mbir li nga xamante ni ay accord la woon ñu daal di koy lenn loo xam ne daal naka say def yéen kaay gi daal di xëy dikk ci Pape Alé Niang mi nga xamante ni ab journaliste la moom nag ñu tegoon ko loxo ginnaaw ab accident njortoon ne dafa def li nga xam ne maanaam mandi ba pare dawal moom nag daal na koy weddi jàpp ne loole daal maanaam ak complot la moom Pape Alé Niang loole la xëy daal di xamle ci yéen kaay gii di 24 heures journal bi di Les mu ñuy xamal li nga xam ne moom la ñuy xayma nit ku mandi loole nag daal nañ koy defal ki nga xam ne maanaam mooy Pape Alé Niang waaye nag la nga xam ne moom lañ nemmeeku daal maanaam Pape Alé Niang dañu ko mujjee bàyyi mu ñibbi këram amul dara loo xam ne moom la ñu koy toppee yéen kaay gii di laas daal di xëy ci collectif ñoo lànk ñoo bañ ñoom nag fas yéene ji nga xam ne moom la ñu dëgmal mu yemboog ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février ñoom nag nee nañu daal camp pénal bi nga xam ne fa la ñu denc Guy Marius Sagna foofee nag la ñuy daal di jaara ñoom nee nañu seenub xeex jëm ci wàllum Guy Marius Sagna ñu bàyyi ko ak courant bi nga xam ne dañu ko daal di yokku nee nañ nag ndax ñoom sax dañoo jàpp ne jàpp gi nga xamante ne nag jàpp nañ ko Guy Marius Sagna amul lenn loo xam ne lu sa tegu ci yoon la ba tey ci biir journal bi mu xëy di ñu xamal lan ñu takk der yi jamono ji nag ñoo ngi def ak fayda ci li nga xam ne moo wër Touba jëm ci wàllum ñàkku kaaraange gi nga xam ne ñëpp nemmeeku woon nañ ko fa journal bi nee na police nag daat nay nettoyé tuuba ak Mbàkke ndax lu toll si junni ak fanweer ak juróom-ñeent ci ay nit yoo xam ne daat nañ leen di teg loxo diwaanu Bawal yéenekaay gi di waa mu xëy nag ci lu jëm ci wàllum wér-gi-yaram gi ñi nekk ca wàllu googu daan nañu koy wax nee nañu ñaar fukki fan juróom jàpp ñaar fukki fan juróom benn ci weeru février danañu amal li nga xam ne mooy ab gréwa yéenekaay gi de la Tribune daal di xëy dikk ci Karbala mi nga xamante nag moom dañu koy tuumal ne bokk na si ñi nga xam ne ñoo siifoon benn xale bu jigéen bu doon liggéeyee EDK moom Karbala ginnaaw bi ñu ko njëkkee jàpp ca section de recherche dafa daal di rëccoon daal di daw waaye nag mujjee nañ koo tegaat loxo ca diwaanu Ndar ci benn gaal la ñu ko daal di moom nag Karbala dafa mel ni amul sens bu bari kaay gii sunu làmb xëy nag daan nay dikk ci face à bi nga xam ne ni ki démb moo amoon diggante Papa Sow ak Siteu ca stade Marius Ndiaye journal bi nag nee na en tout cas daal face à ba neexoon na tàngoon na jër Papa Sow la mu xamle nee na dafa bëgg daan Siteu jël bu leer nañ ñi ngir nag mën a yëkkatiwaat li nga xam ne mooy carrière am nag jamono ji nee na pare na ci lépp